Bonsoir Pété. eh Ibra loo fi def. mais il faut se travailler. tra fii sa contrat arrêté naa ko amoo woon sax contrat feuille laa la joxoon noonu rek nga rëdd ci demal demal demal demal sa biton yéeg yi demal ne demal. mais am naa droit toog coob. looy coob je dois masser. c'était mon laçon. da nga yor xaalis oui. toogal ba comme da ngay këpp ay bagage toogal noonu. mais lan nga dóor tey booy. loolu bu ko lijjën da ngay lekk plat 2000 jox ma ma la. def ci lépp ah. yow sa lijjanti bu ko lijjanti lii bu ma ko facturé woon ci li nga tuur da ngay jàll. mais booy loolu tuur euh, wërsëgu rab yi la woon. xanaa yaay rab il faut compris il faut tu compris quoi. oui mais na ma de je donne mon argent ici se mange bien je suis pas mendiant. yow de mendiant sax la gën. non xaw ma lay arrangé man li ma doon dóor fii booy gisoo fi kenn tey. fi maa ko doon doxal mais am na géeju Casamance defal ma benn bestuwaay ak un peu de café ci deux mille xam nga sa bopp bu ma sonal waay mais sa ceeb bi neex na mais temps yi sama baat may dóoree xam na après dinaa la fa invité quoi. bonsoir ça va. ça va. soxna si naka def. ça va bien. ci loolu ne. ça yaa ngi ci jàmm. bien naka liggéey bi. ça va. c'est bien. ça va mon frère. oui ça va bien. toogal. mais ki laa fekkoon korop. waaw moom la Ibra. waaw le gars là il est fort ah il est talentueux. xamoo ko. naka bërëb bi. ça va. ngi ci jàmm. cool Frère Alou, ça va Oui, merci. Alhamdulillah. Non, personne ne me connaît pas, mais personne ne me connaît. Non, si, non, je suis venu qui me fait la fin, je suis Ah oui En plus, on a affaire. Non, tu n'as pas quoi, parce que je suis joué ben. Mais tu n'as pas tout Non, non, non, j'en peux trop. Je suis venu pour. Sans trop gagner affaire peut-être Non, je suis joué. Je suis joué. Je suis Et puis, ce que tu as fait, tu ne sais pas. Bon. no xam sa bopp. non mais man xam naa ko man mi ñëw tey di la ko laaj. c'est parce que korok bi ma ñëwee dama affaire bi dafa ma dafa dama non dafa garaaw li ngay def. après naa doon boîte. attends attends attends attends. ok allô. oui c'est Mbaye Diop Fary à l'appareil. waaw. no non non non non non attends non ma mënu ma nekk ci àll bi di liggéey def quatre ans Europe di liggéey ñëw fii samay bagage di tardé loolu lool du ma ko nangu waaw non man moomuma ko damay liggéey ak ay jigéen te ñoom ay jigéen lañu waruñu ma ëpp jom mënuma liggéey ak ayta liggéey ak fifita ñu nekk ay ay gel yoo xam ne dañu dañu dañu man waruma liggéey ak ñoom di yaafuus non attends non léegi xam lu ñu def même bu dee 3 millions dinaa ko dugal nga ne nga ne noo dafa dama ne 3 millions 250 mille non foofu laa mën a yem ok non ok foofu laa mën a yem ok. dañu dañu ma sonal quoi. mais yow kon da nga nekkul Europe. waaye yàgg naa ko moi j'ai ah, fait cinq ans là-bas. wuy moo am tey. loo bëgg. best. yow foo nekkoon ci. pardon. oui ma pardon. foo nekkoon ci Europe laa wax. maa fa xam. oui mais j'ai fait beaucoup de pays. mais par la suite bon. tu as fait beaucoup de pays. je veux retourner mon pays pour satisfaire les gens. parce que même euh, euh, les années pop kii mais bés neex na ñu ko defaree. dafa neex moom la ñëpp di naan. Oh. asalaamaaleykum. wéy côté di kat ca bëg-bëg. sa bëg-bëg. ca bëg-bëg. sa bëg-bëg. ca bëg-bëg. sa bëg-bëg. <laughs> nga bàyyi sama sikkim bi mais je te fais du grand amour. fii la buujoo. fii la buujoo. Mm-hmm. mais. xam nga am nga ñaari invité d'honneur. kanati la Souleymane Ndéné Ndiaye day ñëw. déedéet Fifita day dikk. déedéet. waxoon naa la ko nag préparé wul. yàq man man man Souleymane Ndéné Ndiaye moomu nag laa yàq. xam nga day ñëw demal ma kafe. Euh, na ngeen def. ça va ça va bien léegi la Europe Europe léegi daf bu ni gars yi naan ay dafa loolu. parce que tamit léegi de ba nga kafe mbedd dafa métti mooy ñi dem toog maanaam toog defuñu dara mais Europe boo fa nekkee dynamique mais da ngay am xaalis. Euh, grand pardon yow da nga dem Europe. si. foo nekkoon ci Europe. de cela deux jours fa laa ah bon oui fa laa jugee dëkk bu neex la. Ah dëkk bu neex la. yow noo defar ko port bi. port bon port bi sama ginnaaw la nekkee. ah sa ginnaaw la nekkee mais Genova amu port ah. non yow kon yow kon fa yow dama nekkoon ak yow sorewuñu. parce que man sama fenêtre moo ko musaan ubbi damay tim kii bi nii bato yi. keetuñu. bato parce que bu ma foofu maa ngi tuxu woon Berlin quoi. Berlin parce que année bi ñuy daanee mur bi sax boobu maa ngi taxoon sa fenêtre là-bas. loolu boobu la pont bi mur de Berlin mais nag parce que Allemagne Allemagne du Sud ak Allemagne dafa mujjoon ba am ñaari ni am ngeen def ngeen erreur. ay Fodé. waaw kàddu gu tàng jër tus pare yow tamit xam nga ni man damay fay de pare ku tàgg jeet léegi. doo bàyyi xaalis si bopp per bu xar lii wala danga ciy léemu. da ngay gone rek da ngaa xamul li tax ma ko ciy def de teel ma nii. lii de ñemewu ma ko sax laal xaalis si bopp day joxe di leel te leel bi mu lay jox leelum xaalis lay doon. bon nga trop kooku yëg la. waaw tey amati nga jom bay dugg ci gargot bi. fa te yaa ko ba mu ñëw. damaa dàq ba sonn. waaw am na loo xam ne war nga koo lijjanti. comme lan. waa ji dama ko fee fekk mu ni day wax waxi Europe. waa ji. waaw ma ne ko foo nekk mu ni Genova. yow da ngay tukki. waaye. fan la la te Genova li ma jaaxal dama ne ko port Genova amul ma Genova amul port te man ci wetu port bi laa dëkk. mais bu amee port xanaa léegi la def naa fa 10 ans mais foofu amul port. ma di port ba def fa lu mat 50 ans nga daan def naa fa 10. def nga fa. port ba def na fa lu mat 50 ans. nga di Genova xamoo fa port. gaaru nit ñi foofu foofu ñii ñii côté bu leen bàyyi. Ah. ñii ñii ñii ñii ñii port bi lu bees la a ah. port bi lu ah, bees la a j'ai fait 10 ans là-bas. rien à dire. ma jombal. Ah. man damaa mu gisoon ni mel nii doo nga tax ne fii yaawee ka taawi ko. dal leen dal leen. mais c'est vrai mën na nekk parce fa gëj. Eh, boo gisee ku yaawee da koy da nga koy xam. bi wala ma boo gisee ku yaaw. yow xam nga ki ngay sikkim bi laa rusa. waaw nga naan sikkim. sa te attention de. oui tu parles à de. man du ma wax ak mag quoi xam nga. man loolu la may defal naa am na genre yoo xam ne boo tudd wu non Ibra la buukule wu non. non defal naa ko. Eh, non génn ci bàyyi ko mu def liggéey non génn ci. oui moom Ibra ok lii lan la lii ma yor nii lan la. ba ma ñoom quoi ñoom mënuñu fexe ba new ma Europe ñu fexe ba jugee wu ma. booy xam nga yàlla moo def loolu quoi. booy mun bari tukki tukki waaw. bari tekki tekki woo bari yeeg vol yeegoo vol bari dugg train duggoo train bari dugg métro duggoo métro àndal dal déggoo ma de te boo moytuwul nag attention nee ma jàkk xool tu parles à brigadier per di brigade wiiri wiiri jaari ndaare tu me dis des choses claires sinon je vais te boucler dans les grilles très bien ndax déggoo baax xam nga genre gi ñooy nekk Sénégal di dem di ñëw di wër di firnaan nit ñi comme ça la naan ay Europe laa nekk ak ay fii laa nekk ak ay nangam nangam di jël xaalis jàpp teg teg teg bul bul wax bul wax boo waxee sax duma la tëj dama lay duma tout de suite déglu déglu jox ma euh, kii bi xaalisu jus bi bala ah ngeen a bala ngeen a indi ah problème yow ñaata am nga def Europe j'ai fait dix ans là-bas dix ans fan nga njëkk a dem ci Europe maa ngi woon euh, Fari Mbaye fay ma gaa balaa fiyee yëngooti place bi ma foog ne la ko la mais attends aussi parce que la loi la code pénal 26 article 2 55 bala ngaa dugg ci benn affaire da ko consulter ba mu leer. te moom ko tere woon wax de non non defal naa yow bi naa Torino. ak fan. def naa Torino. ak fan def naa Naples. ak fan. bon après yeneen années yi ci mujj ma dem defee ko Genova. ak fan. non fa laa fa laa fa yow bi ngay voyagé Europe bi ngay départ départ Sénégal di dem fan nga jaare mais yoon bu set laa jaare man yoon bu set non fii la embarqué. fii ci aéroport Yoff. aéroport man. bii nii. wan ma jox ma sa kii léegi tout de suite yaa ngi passeport. sama passeport dama ko bàyyi kër ga. yaa ngi carte d'identité dama ñëw dama ko dama ñëw. di doon man eh, yaa ngi carte moom dama ko fàtte kër ga. yoro benn pap ne bu. <laughs> Ah! non jarul ah! eh reetaan booy bi kay bu fi yomb. non da ngay lijjanti a techniquement. Ah, yow kii ngay waxal di ko expliquer amul gaaraay ci dëkk eh, bul wax ak moom waxal ak. Eh, mais c'est parce que. kii oh, parce que la distance ko garaaw la. fii sax ñëpp fii la ñu xamante mais c'est parce que dama génn doom doxantu. waaw mais Guèye attention Guèye Guèye Guèye du question que da ngay gis nit rek bëgg a jël rek yóbbu dóor ci kaso bi comme ça là ñu tëb attention. day ah, homme de terre lañu mais nit ki dafa am kii am quand am de ah, booy. oui ah mais ah, bien sûr. waaw daan nga dugg métro tey de nit nga. métro yu ci bëree daan dox parce que fi mu daan jëm daaw. soo soo doon loolu jaadu na jaadu na doo dem Europe di liggéey pour wut xaalis toll toujours di fay ci train yeeg di fay ci bus yooyu quand même am déet. waay yow Sénégal investir na fi dara. Sénégal jënd naa fi ñetti terrain. fan ak fan. jënd naa Xombol. ak fan. <laughs> jënd naa Xombol jënd naa Thiès. ak fan. jënd naa Tivaouane. am nga ay magasin wala kii yooyu loolu quoi. ñaar ñett ñaari dañu lakk. ñaari dañu tàkk. waaw ah mais loolu cat la booy cat la cat ak jërëjëf waaw mais non attends mais li li il m'a dossier sa xaalis dem di jënd ci mbooy bi ay no ak ko mu def liggéeyam waaw ni bootu ko sax léegi fas yi foofu noppi foofu dañ koy maye il est pas noppi sa mbaay dañ koy maye nit boo dëkkee ca àll ba boo tukkee ñëw bul jël rek Ndakaaru defe ni mooy dëkk. ah mais c'est pas tabax Ndakaaru rek di nga sosoo. nga tabax fa. nga investir Ibra Ibra bañ naa la man bëgguma la. mais defal sa liggéey ci kii. mais loo bëgg léegi loo bëgg ci kii. mais kii na koy parce que kii c'est mais kii baaxul si société société. mais da ngaa bëgg ma yóbbu ko tëj ko. waaw mais yóbbu franchement tey kafe gee toq dal sa kaw nga may ak ma tëb. waaw non kii rek yow xam nga. waay bal ma bu ma doyee bu ma waaw bu ma defaat nii lan la. par yaa tàng. waay gay maan la nii. par xoolal par gay maan la nii gay. yow comment maan la nii. bu ma ko defaat maan la nii. defaat nii ak nii. koraan rek yëpp. waaw bu ma ko defaat nga man koraan. waaw maa ko. gay kilifa nga de. non amul waaw mais kilifa la mais dama respecté. et tu oses m'affronter devant pote na. waaw ba sama ma future femme waaw. ah waay va te faire bëy. Eh, man yow am na lu may. man va te faire net. man yàlla am na lu may. loo leen jotee yaa ko tooñ ah. loo leen jotee yaa ko tooñ. loo leen jotee yaa ko tooñ. mais boo yéen a teg seen bopp. grand kii farul fenn de génn ci rek day xaw ma gëy ñaay fari xaw ma gëy mbay fari. Eh, mais tu vas voir avec moi yow danaa ko réglage. non wuy ma wuy ma woo dina pas aveugle yaa ngi gis lépp. mais danaa ko réglage yow man ngay jéem a. gëy kilifa nga de demal ah, mais tu vas voir avec boykat kay. non boobu yéen yaa faral def yaa teg sa bopp yow kay kay. kilifa nga de kilifa am nga sens bu la arrêté woon. ma ah, doxal la woon. ma doxal doxal doxal. mu ngi koy yóbbu de mu ngi koy yóbbu ma leen xool man man le terrain pour demain. ma dem préparer mais kii mer noonu la mais état mais Birgit dafa gaaw sax mais booy bi enquête de Hola Amba laa ko doon def ci suuf xanaa xamoo loolu. ah bon mais c' est une enquête de Amba. ma xaw loo neex si yow. sa façon sikkim bi moo amatul quoi. <laughs> mais booy li ngay taal xam nga moo la mag sa bëg-bëg boobu. waaw bañ koy def booy boobu soo bëggee mën naa ko génne waat. non sa bëg-bëg bëg bëg bëg. sa bëg-bëg. mais dama koy mayal doyen. waaw mun na nekk. waaw ah, mayal ma ko <laughs> man Guèye dina ma ne Ibra jugal. mais yow daan dañoo waxtaan man ak yow quoi. ko waxtaanal. oui parce que fii xoolal man dama am place quoi. jugal te contrat bi il faut renouveler ko quoi. arrêté naa lépp. jugal. mais amul problème. jugal. ci ba mu jógee ba léegi booy xool liis mbis amul de. la liis mbis amatu fi. jii waaw Ibrahima sama talent laa yore booy. demal dafoo demee. pay nga bëgg ma jouer mais du ma parce que xool fa ma nekkul moo gën a torojo mu rajo. xool kooku ngoj yi crocodile. <laughs> kii daal dama koy reetaan te xam ne man jàppewu ma ko sax ku wér waaye yéen Ibrahima yi man man man man fu ma jëm moom. lii ma ci gën